réseau ukrainien bi euh, jaar na fi ak li nga xam ne moo nekk euh, voilà euh, situation d'instabilité bi nga xam ne pays pays bi dugg duggoon na ci ci jamono ñuy weesu loolu taxul ba tey mun nañu wax ne chiffres yi nga xam ne annoncé nañ ko l'économie du Sénégal mun nañu wax ne carrément am na li nga xam ne moo nekk croissance parce que ñu loon xaar li nga xam ne moo nekk croissance à 5 mais finalement on se retrouve avec une croissance de 6 virgule cinq pour cent même sax dette bi euh, am na lu si des loo xam ne si dette intérieure bi ak dette extérieure bi mais def nañ si ay jéego yu am solo pour rek mun a euh, faire face à ces dépenses de l'État euh, Balla par rapport ak euh, croissance beeg l'économie du Sénégal selon vous euh, bu ñu xoolee li nga xam ne euh, mooy la réalité ban chiffre lañu war a noter par rapport ak Sénégal bu ñu évaluer de 2021 jusqu'à maintenant 2023 ñu war a dugg 2024 merci beaucoup Ndiap <coughs> question bi am na solo xam nga quand je dis que faire de la politique sànq dama ko wax ne solidarité la mais aussi c'est le sens des responsabilités mm-hmm. je pense que un ministre même si tu fais de la politique sooy joxe information de projection mm au moins nanga nga joxe information bu nga xam ne c'est des organismes indépendants ñoo ko joxe parce que c'est la moindre des choses mm-hmm. parce que ñëw naan ñu six pour cent alors que aujourd'hui li ñu wax mooy on va aller sur du 5.3 5.4. Mm. loolu mooy prévision yi nga xam ne. Mm. jusqu'à date euh, durant toute cette année loolu la ñu wax ne 2024 ci lañ jëm. Mm. donc man je le je vais le rappeler à ce ministre que mu am le sens des responsabilités. c'est vrai kuy liggéey ba nga andi ay preuves. Mm-hmm. mais au moins andil ay preuves yoo xamante ne au moins ça fait consensus. je pense que c'est la moindre des choses. Mm-hmm. bi ci topp. Euh, nit booy wax da ngay wax li fi xew rek. li am waaw li am. te wax li am daf ci bokk nga wax lépp ndax yaa ce qu'on appelle mensonge par omission mooy nga wax euh, situation boo xam ne dafa am looy wax bàyyi la ca la ca des. Mhm. te la des doon li gën a doy waar. Mhm. ñëw seet la ca arrangé nga teg ko. loolu kilifa bu mat li mu doon du ko def nit da wax situation bi lii la après nga expliquer lu tax. Mhm. parce que ay. résultat yu yu yu baaxul ça peut s'expliquer mhm. mais il ne faut pas cacher la réalité mm. parce que dans sa communication kenn dégg ko mu wax déficit commercial bi fu mu toll mm. loolu du ci wax aujourd'hui suñu déficit commercial on est à on est on sur du six pour cent mhm. budgétaire plutôt loolu pourtant Macky Sall bi muy ñëw trois pour cent la fi fekk mhm. suñu déficit commercial mooy maanaam bu sénégalais yi liggéeyee ba noppi jël ci liñ liggéey alal jiñ liggéey ci réew mi dem jaay ko mais jaay ba noppi xam ne réew mi tellement manqué na dara foog ñu jënd ay indi ñu évaluer valeur liñ jaay ak valeur liñ jënd. ñu def différence bi. valeuru liñ jënd bi Ablaye Wade di yegg si c'était déficitaire de mille sept cent milliards et quelques mille sept cent milliards la fi waay Wade bàyyi comme déficit commercial. Mm-hmm. Macky Sall toog fii douze ans ñu jox ko cinquante mille milliards. cinquante mille milliards. mu ànd yóbbu endettement bi à un niveau extraordinaire jël na bor lu tolloo quatorze mille milliards de dette moom donc tey déficit commercial bi Moussa Baba du ko wax nous sommes à deux moins deux mille quatre cent milliards de déficit commercial loolu du loolu du ci wax walla loolu da koy bàyyi na da koy bàyyi noonu <laughs> buñ ne économie baa ngi dox mooy le nombre de pauvres dafa war a wàcc. Mhm. le leen le nombre de pauvres au Sénégal a augmenté sous Macky Sall on a plus de pauvres ka mhm. ñi ñi ñàkk dafa gën a bëri. dafa gën a bëri te loolu waxuma ko de ANSD moo ko wax. Hmm. du ma yem foofu. Mhm. li ñu naan indice de perception de la pauvreté parce que su ma leen leen perception indi bi ma leen ne nombre de pauvres dafa augmenté mooy ñi nga xam ne. dañ leen statistiques yi ak ni ñu nomenclaturer le fait que ni ñuy waxee ku pauvre la mooy mooy mooy moo yokk mhm. mais sénégalais boo laaj ne yow sa gëm-gëmu bopp sa yow da ngaa ndóol wala ndóoloo ñaari sénégalais yoo jël kenn ki dafa jàpp ne daa daa ndóol mhm. aujourd'hui nous sommes dix-huit millions neuf millions de sénégalais pensent qu'ils sont après cinquante mille milliards de dépensés mhm. après un endettement bu nga xam ne aujourd'hui dañu dépassé nañ seuil bi nga xam ne moom lañ moom la ñu waxoon ne réew mu toll nii bu mu dépasé lii Mm-hmm. waaw léegi loolu yëpp dinañ ko dinañ ko fi fekk et puis wax ju wax ci croissance croissance croissance mm-hmm. Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi soo defee la moyenne de l'ensemble des taux de croissance sur onze ans def moyenne bi Macky Sall y a un taux de croissance moyen de cinq point cinq mais aussi euh, Balla loolu mun nañ ko expliquer euh, par rapport ak euh, tout ce qui s'est passé depuis mun nañu wax ne trois ans gis neen li nga xam ne moo nekk Covid 19 guerre russo-ukrainienne bi tamit la situation politique du pays nga xam ne mun nañu wax ne avec ces dossiers tax na ñenn si ñi nga xam ne ñoo nekk ay investisseurs yi dañoo préférer nekk si situation d'observateur même en Europe ou bien aux États-Unis aussi Balla mun nañu wax ne carrément ñoom. am seen wàllum inflation yi aussi doy na waar ba tax seen population yi aussi de ressentir nañ aussi choc yooyu bal la est-ce que aussi Oui, ah, vas-y, ah, vas-y, non, non, comment, ah, vas-y, vas-y. Est-ce que aussi, Tamine, euh, vous n'êtes pas trop dans le nihilisme aussi xam sa plateau moom chaque fois bu ma fi ñëwee balaa maa jógee nga ne ma nihilisme. <laughs> naa la ko wax parce que aussi. ñoom en fait xam nga devant des chiffres yoo xam ne aussi xam nga ko dem vérifier. Euh, xam nga ay non non les chiffres qu'ils te disent là chiffre bi mu joxe. institution indépendante joxewu ko nekkul prévision yi ñu joxe. donc da nga wax ne ñoom dañuy manipuler ay seen mais ci lañ dëkk. mais là c'est grave Balla. mais lim la wax nii ma ne la on connaît les institutions indépendante internationales. du ñu reprendre lim wax. mais on a vu récemment euh, FMI euh, jox une bonne note au Sénégal. non au contraire FMI dernièrement li mu wax. lu mu wax. mooy sama sama gars yi bor bi. subvention yi na ngeen ko arrêté le Sénégal va aller gis nga année deux mille vingt quatre je vous le dis en mille nangeen ko noté. Mhm. ça va être une année très difficile pour le peuple sénégalais parce que subvention yu bëri yu état doon def FMI nee na ko da nga koy dindi parce que lu tax ñu doon xaar ci xaalis ci pétrole bi ak bépp faux bon bi mu ñu def. jékki-jékki ne exploité dafa tax gars yi. seen yaakaar tas seen yaakaar tas ñu ne ah. ñun dañ leen doon bàyyi ngeen lépp di def lu leen neex parce que dañ yaakaaroon ne xaalisu pétrole bi six cent milliards yi dugg mais apparemment ni ñu gisee nii cent milliards yi narul dugg donc ni ngeen doon def ci Senelec di ko def ci ci subvention yi il faut ngeen changer ko. mais Balla man je suis pas économiste. donc mais bu ñu xoolee aussi état bu Sénégal subvention yi nga xam ne. mu ngi koy def si denrée de première nécessité yi. est-ce que aussi. da nga poser deux <laughs> questions waaw allez-y donc dama la bëgg a wax premièrement rek contextuellement que. quand ils nous disent que ça va bien mais nous nous savons très bien que ça ne va pas les indicateurs sont là ça ne va pas les Sénégalais disent que ça ne va pas et l'ensemble des chiffres montre que ça ne va pas mm. coow lu bëri ji wax ju bëri ji plan Sénégal émergence tu émerges à un taux de cinq pour cent mais ça li anglais di wax c'est un c'est de la plaisanterie it's a joke mënoon na yow tu vas faire émerger une économie mm-hmm. tu as un rythme de croissance de cinq pour pendant dix ans onze ans yi mu fi toog yëpp moyenne bi croissance Macky Sall est à cinq point cinq Ablaye Wade mi ngi fi jiitu rek nga xam ne maamam la était à trois point deux Ablaye Wade n'a pas puisé toute la dette Macky Sall a tiré sur le levier de la dette. Mm -hmm. totalement et complètement li lim utilisé ci budget cinquante mille milliards dont les quinze mille c'est quinze mille milliards yu mu jëlee ci dette bi qu'est-ce qu'il en a fait taux de de cinq pour cent sur onze ans et on me des explications waaw dundu nañ coronavirus dundu nañ guerre mais Ablaye Wade dund na crise financière de 2008 sur une période de dix ans quinze ans toutes les nations von faire face à des défis mm-hmm. kooku loolu mooy la réalité mm. quand tu fais de la planification aujourd'hui nu sommes en 2024 bu ñu yàlla defoon bu yàlla defee Ousmane ko nekk président mm. ñu jël réew mi toog ci bopp réew mi war a diriger dañuy def ñun suñu xel ni dans les vingt ans qui sont devant nous le Sénégal devra faire face à des crises exogènes de manière naturelle parce que vingt ans de stabilité ci àdduna bi ça n'existe nulle part c'est vrai mmh. amul fenn ça c'est vrai amul fenn donc doo ñëw toog nga am sa marge d'endettement boo xam ne dañ ne boo yeggee soixante-dix tu dans la zone rouge mmh. yow nga ñëw Ablaye Wade nekkoon cin Ablaye Wade bi muy exit endettement bi était à plus de cinquante pour cent mmh. Ablaye Wade wàcce ko ba trente et pour cent donc Abdoulaye Wade a fait l'effet inverse. Mhm. dafa ñëw fekk bor bi ngand mu wàcce ko door a dem Macky Sall la ñëw yow nga ñëw bor bi nekk à 30 pour cent du PIB 30 et quelque nga am marge jusqu'à 70 nga war fi toog pendant 12 ans mais planification gestion du risque li mu la war a wax mooy mais même lu ma endetté endetté naa endetté wu mettre ko dans des secteurs productifs. Mhm. mais naa def attention parce que waruma yegg ci waruma teeŋ parce que imprévu day am. Mhm. mais nga ñëw ñu ne la bor rek nga topp amadu Ba spécialiste des emprunts obligataires mu leba leba leb dugal réew mi ci tension trésorerie ñoom ñëpp ñun ñëpp dañ koy fàtte mais 2017 kan moo fi am bor état war la fay fayu la fàtte kenn fàttewu ko mm. réew mi yëpp tey dette intérieure bi kenn fayul dara c'était le travail de Amadou Ba li mu lancé ci emprunt obligataire augmenter obligation de remboursement de l' état état dem ba état mënul fay bourse rappelez-vous l' actualité yi dañ doon jóg duñ fay seen bourse fii entreprise yi commande publique mm-hmm. état liggéey loolu du la fay mm-hmm. parce que lu taxoon parce que Macky Sall dafa ñëw gëm ay projet ngand tout de suite tout de suite tout de suite mm-hmm. Amadou Ba dem leb leb leb leb ñu utiliser leb leb leb ba yow dafa mel ne yow sa salaire tu par mois mais tu di ko fay bor non war nga fay loyer. war nga def protection sociale. Mhm. justement xale yi ne ci pouponnière yi war nañu am des équipes. yuy dem di leen surveiller. Mhm. par exemple politique de protection de l'enfant mais c'est de l'argent que tu dépenses. Mhm. parce que tu recrutes des personnels qualifiés. dans les municipalités yoo xam ne seen rôle mooy fépp fu xale boo xam ne nekkul ak ay parents am nekk nañ dem di ko vérifier c'est ça la protection de l'enfance mais loolu dépense sociale boobu foo koy loolu économie du ko joxe budget moo koy joxe donc mais su fekkente ne yow da nga ñëw ne daw man politique sociale politique carcérale politique de la femme politique si yooyu yëpp police municipale protection enfant yooyu yëpp amul ma sangal woo ma solo naa def yu ngand yu rëy yoo xam ne ku ci teg bët ne ah mais mhm. pendant que je fais ça je m'endette à tel point que mënuma fay salaire ma fay bourse ma fay lii mënuma fay lële. mais mais mais su ma su ma la déggee ñoom fan yii passé dañu dégg ministre bi mu demee assemblée nationale mu ne en tout cas président bi ñëw dinañ ko bàyyil benn état financier boo xamante ne bu bu normal lay doon. Mm, mm. bu bu bu moom loolu loolu la fa expliquer parce que mm, euh, économiquement le pays va bien. surtout avec euh, l'exploitation pétrole bi gaz bi nga xam ne mun nañu wax ko euh, bu yàgg. allez-y Balla pétrole des revenus à